yal na yàgg xew yal na yàgg am muy gàmmu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddu gi xew na ña daan def lu baax ba léegi juguñu ca ña nga ca ndax arab in nee na inna asaarana taddullu alayna fansur baadana na suñu gisee lii arab nee na suñu jeexital mooy tegtal na mag ña meloon tabaarakallaahu bàyyi ma jigéen njaay macha allahu moom mi nga xamante ni si moom moo jur alxaaji aale njaay taalibe xalifa sëriñ kër si bari na ay taalibe waaye boo ne taalibe xalifa xel yëpp dem ci sunu baay alxaaji Ala Ndiaye yal na yàlla doole guddal fanam roti woow mooy wàcc ba ci doomam yi alxaaji Masata Ndiaye alxaaji Ablaye Ndiaye ànd koog nag seen rak alxaaji tabaarakallaahu Abdou Aziz Ndiaye ñoo koy wax al Aziz Ala Ndiaye ki nga xamante ne si tabaarakallaahu mooy magu ku baax kii taxaw di baay Ala Ndiaye ñu xam woo xam ci baay ñu defati teraanga ju rëy rëy rëy nga xam ne daan nañ ko def chaque année gis ngeen tool baa ngi nii macha allah lépp lu fii nag tabaarakallaahu nag yi kese ngeen gis waaye macha allah xar yaa ngi ci yoon wi euh, ginaar yaa ngi ci yoon wi lépp ngi ci yoon wi dara ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw ci. kër Seydina Muhammad ci gàmm gi mën a xéewlu ba macha allah yóbbu ko dara taxul jóg ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan nag yàlla nañ ko yàgg mën yàlla nañ ko yàgg fekke yàlla nañ ko yàgg tal ci kàttanu yàlla ñu ñaan képp koo xamante ni si jël nga fa dara seex ko lekk ko nang ci li sëriñ bi wax loo ci lekk nang ko reese ci jaamu yàlla jàng alquran def ay salaatu ala nabi sikkar tagg yonent bi lépp loo xamante ni si bayit bi ma wax léegi ëmb na ko muy isaalam yakun naxwal xaraami adulu lépp loo xamante ni si gàmm da koy bañ nañ leen ko daw lépp loo xamante si gàmm da koo sib nañ leen ko daw lépp loo xamante ni si yonent bi saa sala bugg ko nañ leen ko daw bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bis bi bis bi kenn moom ko maam Cheikh Sidi Hadji Malick si radiyallahu taala damaa wax barki dem ni li war ñëpp di farata ci ñëpp te yàlla njëkk koo def ñëpp inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayu alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla woorul julliwul deful dara lu dul julli ci Seydina Muhammad moom yàlla def ko ba pare diggal malaayika yi ñu def ko bi ko malaayika defee ba pare yàlla digal tabaarakallaahu jullit ñi képp ku naan ashhadu an laa ilaaha illa ngay julli ci sallallahu alayhi wa sallam loolu la Xaaji Malick lijjanti lijjanti ba am ko ba moom ko bokk koog nag jullit yëpp boo ne gàmm rek sa xel dem ci Tiwaawan waaye ba Malaisie ba Australie ñëpp ngi gàmm. waaye daal yaay mënu def moom da ngeen di woo euh, bépp taalib aussi mu def li ni mel. tabaarakallaahu Abdou Aziz li mu def. macha allah ci ndigalu ay baayam ak i magam ak rakam yëpp référence la moom daal lu baax su dul woon li ko yàlla digle mu jara def ndax fa nu koy nettalee safaanu mbaax su woon li ko yàlla tere mu jara ba macha allah ndax fa nu koy nettalee lii nga xamante si nag moom mi ngi koy def donnoo ko ci maamam donnoo ko ci baayam di ko def ku ko mën na ko def te yàlla kese tax ku ko mën na ko def te yàlla kese kese kese kese kese tax ndax def fi nga war a def loolu dafa am solo daa wàññiwu dara yàlla na ko yàlla fay fay magam fay baayam fay ñun ñi ay wëllëreem lu yàgg ba nëgë ni ay rakkam yi nga xam ne taxaw na jàppale ko ci liggéey bi rek yàlla fay leen tabaarakallaahu yàlla na yàggatee sax lépp lu ci waay barkeeloo jaamoo ko yàlla yool ga yàlla bu ko ci kenn ëppale yàlla bu ci kenn ëppale ay mbokkam ak mbokku jullit yëpp nag tabaarakallaahu